bokki jullit yi bokki taalibe yi waa kër Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Khadimu Rasoul ndigalu Cheikh Mountakha Mbacke xalif général des Mourides sëriñ Ahmadul Muxtaar Mbacke xalif Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim ci kilifteefug sëriñ Abdourahmane Mbacke xalif sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma sëriñ Moustapha Mbacke Nayde président fédération des groupements religieux culturels disciples de Cheikh Ahmadou Bamba wilaya ci mboolem réew mi ak bitim réew ñoo ànd di leen Moustapha indi ko ci dëkkam bu tedd bi at mu jot mu daan ko ci wooteel màggal gi samedi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre 2018 ci Touba Darou Khoudoss sëriñ Moustapha Mbacke mii jëwriñu mbooloo mi mi ngi soññi jëwriñ yi yi sous section yi ak daayira yi kenn ku nekk soññi ñamu jiite ngir nu bokk waajal ko waajtaay wu raw wuñ ko mas a waajal ci jàng alquranul karim xasiida salaatu ala sikar bernde ziyaare taafonte jokk ak bokk ak dimbalante programme Njaasaan ca la ñuy ubbi exposition bu mag bi nga xam ne ñi ngi ko tudde jëwriñi jëwriñ yi maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina ci njiitul Serigne Cheikh Jëmb Fall xalif général de Baye Fall jabootug maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina wéyal njàngom alxuraan ma ak xasiida ya ak berna ya ba samedi ca tàkkusaan taabal ronde bu mag ñu tànn ay boroomi xam-xam ñu bokk waxtaane njëriñ yi dayre lamboo ba tax ñu war koo dugal ci doxinu réew mi guddi conférence bu mag tem bu am solo teefu tariixa ci lépp luy indi jàmm ci réew mi Serigne Mbacke Abdourahmane mooy def conférence ba Serigne Moustapha Mbacke Nayde mi jëwriñu mbooloo mi dana gaaral discours bi mu baaxoo ci turu kilifa yi ak mbooloo mi danañu ca teg njàngum xasaayit ci mbooleem kuréeli dayri bi ak njàngum rajas moom la ñuy fanaane ba asamaan set ñu sant soññee ñaan yeweeku noo ngi ciy sàkku teewaayu mbooleem jullit yi kilifay diine yi kilifay aada yi rawati njabootuk Seex Ahmadou Bamba Mbàkke Xaadimu Rasuul jaboot gi ci buntu këri Seex Mouhamadou Moustapha al Karim ci jabootu seex yi Sëriñ Tuubaa yi taalibe yi Sëriñ Tuubaa yi dayri yi nekk ci réew mi dayri yi aju ci kër Seex Ahmadou Bamba Mbàkke Xaadimu Rasuul rawati dayri yi aju ci biir Daaru Xuddus noo ngi sunu borom faj say aajo barke Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Khadim Rasoul barke Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim barke Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma ndey dayre yee woote waa wilaaya ñoo boote Gaynde Fatma moo jiite mooy jëneer ba nuy niite gaynde moo di géejug xam xàll yoon wu ñeel kuy dem waa ju bu ànd ak ngëm yàlla dal di koy may ndam dayre boobu daa am cër sàmm diine moo leen ñor ndan di yàgg naa bay xur daan na gis gisam day xor noo ngi woote ngir màggal jàng alxuraan sellal Bamba moom la nuy ñaanal yàlla na doon bisub njëggal bis ba day bisub barke ak ngërëm ci waa Mbàkke bépp jàmm bu koy fekke yàlla def ko way tekki màggalug sëriñ Bamba jar na farlu ngir bis ba fàwwu koon nga jot yool ba ndem amoon nga pas-pas